مدى الخبير taxawaay bi rafetlu nañ ko lool. loolu rek a war loolu rek a war. am na ci te dinañ ci yaakaar jërëjëf. jërëjëf yéen ñëpp fi. amiin a ko ànd ak yéen rek. incha allah dina fas yéene gisul dara ci suñu kanam bu liggéey sëñ Tuubaa. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu tànk yi ñëwoon nag tànk la loo xam ne tànk feddili li ak taalibe ñëwit di yeesal sunu bopp lit ndax ak taalibe it mënut a wér mukk lu du dangaa jël sa bopp rek jokk ko Serigne Touba te it yàlla def na ne waxandewu Serigne Touba yi moom fépp fu mu fanaani rek foofu la sunu ruug yi di fanaani ak lépp lu nu am nu newoon nag ci sëñ Muntaxa doon dolli sunu jaayante dolli ko dénk sunu bopp. te muy lu bokk ay bokk nag yu bari waaye gi ci ëpp solo fekk na sama maam it ak sëñ Basiru sëñ Tuubaa boole woon démb tey doog a dikk ba sama kër maam ma nga ci daaru Minam kon nag sëñ bi du tey rek nu boole muy lu yàgg lool yàlla defit ne képp guddi murid dib moom ab xalifa la boo xam ne mën nañ ne xalifa Bamba la xalifa Sëriñ Tuubaa la ndax koo xam ne la dellu siwaat na ci yoon wi ak taalibe dellu siwaat tamit luy taxawal ak murit di lu siwaat di taxawal loo xam ne di Serigne Touba fonkoon mu ëdëb ab yar ndax dundam gépp ku ne ku ko xam ku ne xam ne topp ay kilifaam ci la mësa mujj gi mënatul dem fenn lu dul di taxawee santaane yi koy dénk di topp ndigal li di topp taalibe yi di taxawal ay bis yoo xam ne ay bisi la di ko bokk ak taalibe di ko dund ak ñoom di ñaanal kilifa yi di ñaanal mag kon kooku tey bu fi taxawaatee it feddaliwaat li Serigne defoon lépp moom mu feddali ci boppam li ma wax léegi ne ma damaa jiitu rek waaye la ma doonoon démb soppi ma sama mbubb ci dara man ab taalibe laa ba tey yéen a ma jiital rek waaye du taalibe di dox rek man maa nga ci loolu ba tey kon kooku dal na xel yàlla na ko yàlla sama borom yaakaar te bañ a tas sunu yaakaar ci moom te sunu borom dëgëral ko la woon yéene Serigne Bassirou Mbacké ci yoon wi mu àggale ko li nga xam ne moom la Cheikh Sidi Mokhtar mujjee naalit mu àggale ko ba naal yoo si boppam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu